est-ce que ci mbiroom ñi ngi toll ci semaine alphabétisation est-ce que jotul tey mathématique ñu koy expliquer di wala di ko ñu koy toj ñu koy waxee ci ci wàllum kàllaama yi nga xam ne la ñuy laaj ci biir réew mi. effectivement nous sommes ah, dañ cee d'accord xam nga man yàlla dafa def fekke na participe naa aux assises de l'éducation et de la formation. en yi waxoon nañ ne nañu wekk suñu njàng ak njàngale ci suñuy kàllaama. Mhm. mais loolu aussi day laaj ñu tàggat. jàngalekat jàngalekat yi. Mhm. parce que tey te pourtant mënumaa bind séeréer mën nga nekk xalpulaar te mënoo bind xalpulaar donc il faut ñu tàggat jàngalekat yi ba ñoom seen bopp ñu mën a bind mathématique mën a bind en tout cas des aspects ci seen langue yi tey boo demee def gëstu tuuti ñun ñu ngi koy def Cheikh Anta Diop bind na yu bëri ci mathématique comme ñu ne une droite mu ne rëdd yooyu yëpp Cheikh Anta daf koy kii tey am na professeur mathématique boo ko waxee lan mooy point nan la ko waxee am jafe-jafe mhm. et dama ko doon expérimenté ko mën na ko gis nga tey jàngal xale bi mathématique di ko ko jàngale ci français ni mu compliqué par rapport ak jàngale ko ci langue nationale dama seen kër rek nga ne xale bi xale bu am 4 ans nga ko 1 plus 1 day am jafe-jafe pour nga pourtant boo ko ben ak ben ñaata la jox mu neen parce que ben ben bi benn beñe ak benn beñe ko parce que mu parce que xam ko. alors que fële langue étrangère boobu concept 1 bu xamu plus bi xamu égal bi xamu donc mu am ay concept yu bari yoo xam moom maîtrise ko alors que ci langue nationale boo ko ben. bongo ak benn bombo mu ne am naa ñaari bongo mhm. te loolu mathématique la d'accord